أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتصمت بالله وصدقت بالله وسعنت بالله ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي أحد سمد الذي لم يلد ولم يولد walam yakun lahu kufuwan ahad fala munazia lahu fi mulkihi wa sultaanihi almulku mulkuhu walxalqu xalquhu wal amru amruhu walxukmu xukmuhu faman arada anhu faqad dayaa nafsuhu wa zamaanuhu ahmaduhu subhaanahu wa taala ala ma awlaahu min amimi karamihi wa fadlihi wa baad fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu mbokki julli ñi mbokki amateur yi nga xamante ne yéen a taxaw fii di teewlu Thiès Média seen mbokki taalibe seen mbokki ustaaz seen mbokki imaam seen xarit seen rakk seen soppe di imam Mouhamadul Kabir Kamara mu ngi leen di nuyu di ziara fas yéeni tamit toll leen tiwaat suñu émission bi nga xamante ne moom mooy tawxiit waaye di jiital tamit ab nuyoo suñu directeur bi suñu PDG Ibrahima Zack Dieng di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy caméraman bi muy Abdul Karim Mbacke Sow ñu ngi koy jaajëfal di ko ziara ci émission bi nga xamante ne mu ngi koy def ak ñun muy émission tawxiid waaye tamit di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy délégué de quartier muy commissaire Tara ñu ngi nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy imam di imam Kamara fii ci grand standing waaye du nuyu tamit euh, suñu mag euh, suñu Khalifa Abdou Khader Kamara nekk imam tamit fële ci ngir ngi neew waaye ak ki nga xamante ne mooy rakkam mu bàyyi ko fii ci kër gi muy Cheikh Ahmadou Bamba Kamara ak euh, ki nga xamante ne moom mooy tamit alhaji Cheikh Kamara ñu ngi leen di di leen ziara du nuyu mboolem ñi nga xamante ne tey ay amateur lañ ci Thiès média bi di sàkku seen ñaan ab yokk ak dollent waaye ngeen defal ko tamit defal ñu ko waaye defal ko tamit suñuy directeur bi suñu PDG bi nga xamante ni moom mooy Ibrahima kon Zac Dieng di leen giar bu baax a baax a baax a baax di ziar oustaz yi nga xamante ne ñu ngi sama wet muy oustaz Fodé Mahmoud ak oustaz euh, Mohamed Diallo ñu ngi leen nuyu nuyu tamit euh, di leen ziar di wax ni ñu ngi ak émission bi nga xamante ne moom mooy tawxiid muy suñu deuxième émission bu ñu tawxiid wéetal yàlla jaamu yàlla wéetalikoog yàlla kennal yàlla xam yàlla xamle yàlla euh, jaamu ko bañ koo wutal dendandoo bañ koo wutal àndandoo bañ koo wutal lëkkandoo bañ koo wutal dara loo xamante ne dafa taxawee taxawaayu jàppale borom bi ndaxte borom bi dafa tele déet loolu jomm nañ waruñu ko sax jéem a xalaat rawatina ba di ko wax ba di koy def kon loolu day dugg ci domaine bi nga xamante ne moom mooy domaine ab bokkaale kon nekkal yàlla ak kennal yàlla googu noonu li mu def ke amul sañ-sañ bi ak fu mu jaar ak doomu aadama muy moom kos kese muy moom kott muy moom rek tey ci loolu lañu ñëw ndax am na ci fu doomu aadama jaar loolu ki la fa jaaral kookoo mat boroom ndax ki mat boroom amul moroom ki am moroom matul boroom kii fi nekk di boroom du suñu moroom te mooy suñu boroom kookoy yàlla képp koo gis tey moo xam muy nit moo xam muy jinne moo xam muy njuuma moo xam muy kiyaafa dañ laa sàkk kon ki la sàkk nag mooy boroom kookoo mat boroom fi mu jaar ak ña nga xamante ne daf leen a sàkk tey ba ñooñu toog kenn ci ñoom toog di wax jàkkaarloo yéen nii ci Thiès Média muy leen di fàttaliwaat tawxiit kon pour ngeen xam kooku la pour ngeen xam ki nekk suñu ginnaaw la pour ngeen xam ki ñuy wax loola pour ngeen xam ku ñuy dégg loola pour ngeen xam ku ñuy gis loola pour ngeen xam ku ñuy yilif pour ngeen xam tamit ki nga xamante ne moom mooy suñu borom kooku moom mooy yàlla ahad kenn la kenn mënu koo def ñaar kenn la kenn mënu koo def ñett kenn la kenn du ko wutal ndey kenn du ko wutal baay kenn du ko wutal dara lii yépp moom jomm na ko moom borom bi subhanahu wa taala kon ki nga xamante ne moo sàkk doomu adama sàkkin bu doye di jëlee ko fu doye di dugal ko fu doye di mu delluwaat tamit ci moom delluwaat tamit boo xamante ne bu doye di sa njëlbeen tokkantalu man yu sa mujj sobe kii doomu jaam rek nga mën a doon munoo bu doon buuru kenn munoo yilif kenn ñi ko fi doon woote yépp kon yàlla rëkk na seen digg jëlee na leen fi kon mu mel nii bu ñu bëggee xam yàlla googu dañuy xam ña nga xamante ne moom mooy doomu aadama ku nekk xam sa bopp waaye ñu xamle fi mu nga xamante ne yàlla borom bi subhanahu wa taala jaar na foog ñun muy ci mbooleem euh, alam yoo xamante ne dañoo wutee kon mbokk yi ñu ngi seen tele Thiès Média ànd ak yéen ci émission bu ñuy wax émission tawxiid ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy xam yàlla xamle yàlla ak étape bi nga xamante ne yàlla jaar na ak ay jaamam muy étape yu bëri muy monde yu bëri monde bu ci njëkk alxuraan di ñu ko jàngal pour wan ni leen dëgg-dëgg yàlla rek ay yàlla am keneen ku nekk fii bu fi amee ku neen ku fi nekkee rek fii nga xamante ne maa ngi koy waaj tudd muy jaaruwaay bi nga xamante ne yàlla jaar na fa ay jaamam ba jaamam tey mel nii taxaw nii di wax tey amul keneen koo xamante ne mën na faa taxawee noonu kon loolu bu ñu ko joxee yàlla kenn la yàlla dëgg dëgg dëgg xam la yàlla dëgg dëgg wax ni amul keneen ku fi nekk ku dul yàlla kon moo ñu tax a jóg ndaxte aarifu nii la wax xab la xabla an taabudu nii fa in la lam taarifu nii fekk fa kayfa taabudu nii kon dinañ ko xamle ba pare dog koo jaamu dinañ ko xamle tamit ba pare doo ko digle ñoom tamit ñu jaamu ko dinañ ko xam ñun suñu jëm bopp ba pare doog koo tamit jaamu ndax buñ ko xamul rek da waar pour nga xam nit ki nag foog nga xam li mu la defal fi mu la toogal fi mu la nekkal fi mu la teewal lu mu la may kon loolu noonu nag moo suñu deuxième émission fu xam yàlla boobu noonu ak fu mu jaar ak ñun wa iz aqaza rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الغافلين muy mondo bu njëkk nga xamante ne yàlla fasante na kook ay jaamam kenn ku ci nekk ci ñun ba dara doonulee dara yàlla ci alamul arwaax yàlla dajale woon na ay mindaafoonam jiital ci ay doomu aadama moo xam tamit ay jinne ni yéen ñi nga xamante ni bani aadama yéen njabootu aadama démbu laa leen dajale woon moom borom bi subhanahu wa taala démbu la ñu dajale woon ci alamul arwaax ba dara doonu le dara ne est-ce que yéen bu ma leen bindee ndax di ngeen ma jaamu boobu mu ngi jël la nga xamante ne mooy li am solo ci doomu aadama muy jaar ci suñuy ginnaaw ci suñuy yaxi ndigi di dugg fu ñu nekk ci ñun muy toqantal googu noonu loo xamante ne ci suñu ndigg lay cosaanoo kon suñu ginnaaw bi ne est-ce que yéen su ma leen bindee ëllëg di ngeen ma jaamu ah am koo xamante ne jóg na ci ñun ne ahankay ñun tamit ñu topp ci tamit ne ahankay kookooy kan mooy ki nga xamante ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a ne balaa ahankay xaalu bala shahid naa ñun tamit ñu daal di seede tamit ni ahankay yow yàlla dinañ la jaamu kon képp koo gis fii tey àdduna gi muy dund nekk fi nangu woon na démb fasante woon nag kóllë rek borom bi subhanahu wa ni bu ko wàccee dina ko jaam kon yaa fi ñëw nekk ci gundaandaat nekk ci lu la neex kon fii la yàlla njëkk ak ñëw ñun doomu aadama keroog nag bam ñu dajalee mboolem lu fay ruux yàlla jox nañu ndigal gannaaw ba mu jaaree ñun fu mu war a jaar ci alamul arwaax joxe na ruux yi ndugal kenn ku ci nekk mu ne ko lekkante leen am ruux yoo xamante ne lekk nañ ñaar ñii lekk ñett ñii lekk juróom ñu doog leen a lekk ñii lekk fukk ñii lekk ñaar fukk ak juróom ñeenti ruux ñu dog leen a lekk loolu nuñ ko mën a déggee mooy di nga gis nit ki juddu tey am ñaari doom ñaar la wan noonu ci alamul arwaax yenti yàlla aadama mu am ñaata doom 29 doom 39 euh, doom ñaata la wan noon kon 39 la wan noon ñu doo koo wan kon nii lañ doon wannantee kon looloo waral ku yàlla bindul woon démb ni war nga njaboote munoo fexe muusa ka waane ba am doom bu yeboo na nga dem ci mocckat bi bu yeboo na nga dem ci faskat bi bu yeboo na nga dem ci kiikat bi waaye teewul yéen ñi nga xamante ne toll ngeen foofu ngeen war a dem faju ji dem leen faju ci moo xam ci docteur bi la wala ci ñaankat bi dem leen faju ci waaye lii lu logique la loo xamante ne yàlla tudd na ko tamit démb ki mu ku wannul woon mënoo muusa ko waane ba am waaye demal ci sa ngëm mën ngaa wut ñaan bokkoo woon ci ñu wan ni yàlla nga tudd euh, sëriñ ba mu defal la ñaan wala nga dem ci médecin bi mu xool la defal la ay pansement nga jaaree fa kon am doom loolu tamit mën na nekk ngeen bañ a découragé kon fii la yàlla njëkk ay jaamam muy alamul arwa waaye mu am feneen foo xamante ne moo ci topp gannaaw ba loolu féetee côté ñu war a ñëw ci beneen façon kon il faut ñu jurante il faut yàlla sàkk kenn koo xamante ne euh, dina ko mën a multiplier moo moo tax mu jël ki nga xamante ne moom mooy suñu maam adama sàq ko ci ban alquran boobu ngeen di dégg inna xalaqnaakum min turaabin inna xalaqnaakum min turaabin seen cosaan seen njëlbeen suuf la woon kon keroog la jël suuf defar ci sos ci ki nga xamante ne moom mooy suñu maam aadama muy muy aalamu saani kooku beneen aalam la mu bëgg ñu multiplier mu jël ci faaru càmmoñam def ci ki nga xamante ne moom mooy xawaa mu bëgg ñu multiplier wu mu àndiwaat ci beneen système jaare lañu ci fa muy toqantalu man yu boobu noonu alxuraan di wax suma min nutfatin loolu nag mooy aadamu saani muy ñaareelu monde bi nga xamante ne ñun dundu nañ fa te kan lañ fa nekkoon ki ñu war a xam la yàlla ki ñu war a xam la ku ñu war a yëg la ku ñu war a gëm la ku ñu war a topp la ba saa yuñ ko fàttalikoo rek suñuy yàpp yaram yi di pat-pati iza zukira allahu wajilat qulubuhum du ci yam suñu xol yi di tooy di saf yàlla ñu koy bëggee du ci yem buñ ci jógee tamit ñu am dooleeku li nga xamante ne moom mooy ngëm ñi bu du ci yem tamit suñ fa jógee ñu mën a sukkandiku ci moom ñu xam ne moom rek moom moo jara a wéeruwaay mbokk yi bu leen fàtte ni ñu ngi ci Thiès Média di def seen émission tawxiit ànd koog oustaz Mouhamadul Kabir kamara ci xamale yàlla ak fi nga xamante ne jaar nafa ak ñun ñu tolloon ci deuxième alam bi mooy fi indama naa fii batni ummina keroog ba ñuy nekk suñu biiru yaay yàlla bëgg ñu multiplier wu ci la commencé dugal diggante aadama awa ay ëmb ñaar fukki ëmb ëmb bu nekk seex la ba mu des benn kooku nammeelu yonent yàlla muhammad yegsi la te mënul partager dara looloo waral benn doom waaye ñëpp ay seex lañ ci biir alam boobu mooy suñu biiru wéjur point la nañ ko leeral nuñ ko mën a déggee ba suñu wéjur tollee ab diggante amu fa xarit moom xale bu ndaw bi liir bi amu fa àndandoo moom liir bi amu fa soppe amu fa dara xam nga lim fa am mooy yàlla yàlla kese la fa am yàlla kese kese kese kese kese la fa am yàlla taxaw ko guddil ko bëccëg ko defal ko tamit lu ko lu nekk am fu mu jaar ak moom laata nit ki di yegsi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ci sosu bi rek jàngale na ci moo tax damaa ko scientifique des scientifiques moom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam scientifique bu mag bi xoolal mu ngi jàngale xeetam du ñu xamal ni. inna ahadukum yajma'u xalquhu fi batni ummihi arbaina yowman ma xamal leen kenn ci ñun ñun ëmb gi nga xamante ne tey suñuy waajur yi ñu ngi koy jaar ak ñun suñu biiru yaay mu ngi toll ci ñeent fukki fan ci toqantal ma nuyu gannaaw bañ ko doonee summa yakunu alaqatan ci biir loolu ñu daal di jóge ci étape boobu ci toqantal boobu noonu fu ñu toqan yam ca waaye aju alquran jàngale na ko suma miin summa min nutfatin summa min nut fa kon alaqa waaye summa yakunu alaqatan misla zalika ñu teewaat foofu noonu aju foofu noonu ñeen fukki fan waaye ba léegi summa yakuna mudghatan misla zalika ci biir loolu tamit ñu nekkaat foofu ab lumbu ñeen fukki fan muy ñett ñeen fukk Oustaz Abdou Karim muy ñett ñeen fukk ñett ñeen fukk bu ñëwee dafay nekk 4 mois kon ci biir loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu yàlla jaar ak ñun en tant que jaam mu ne yàlla yabal ndaw ndaw boobu mooy kan moom mooy malaaka mu ne ko ëffal ma lafus protésam bi kenn ku ci nekk xam nga ni doomu aadama am na noo xamante ne da koy ñëwee waaye am na lu koy muur mu ëf ci moom ruux waaye mu dugal ko ñeenti mbir yi ñeenti kàddu yi boobu papa nekku fa yaayang lay ëmb mu ngi wañaaru mu ngi jafte mu ngi tufli mu ngi wàccu mu ngi def lu nekk ndax lépp ngay defee ci sa biiru yaay li nga soxla ak yaay sa yaay lu mu soxla du ñu benn da ngay jé donc ne ko ah yaay ci biir commandé ko man de soxla naa saabu sa yaay jël saabu lekk wëlbatiku jëlaat suukar le teg ci léeg nit ki buy jafte di jàmbat di laajte lii laajte waat lale femme bi lu mu soxla yaay ji lu mu soxla ak doom ji lu mu soxla moo wutee te la ko koy loo yàlla mooy manipuler yaay ji moom mu xam ne lii la soxla lii forox na moom la so xale bi soxla lii lawet na yaay ji moom la soxla bu ñu ko lekkee mu équilibre kon gis nga yàlla yebal ndaw mu bindal ko mu ëf ci moom lii bi kat bi rizqihi mu bindal ko li nga xamante ne moom nga war a am ci ab wërsëg ba mu la koy bindal ki ngay topp ci ginnaawam di ko waxal di wax kàddu goo xamante ne nekkul dëgg ngir bëgg a am ci moom dara xanaa xamoo yàlla bind na sa wërsëg démb ba ngay nekk ci sa biiru yaay ana ko fi jar àndalak yàlla bi kat bi risqihi àndal ak yàlla wa ajalihi muy dë kenn ku ci nekk ak sa àpp fii la sa àpp yam ci am-am fii la sa àpp yam ci xam-xam fii la sa àpp yam ci dund fii la sa àpp yam fii la sa àpp yam ci lii ci lii ci leer ci fi ngay liggéeyee ci fi nga nekk ci ni nga nekkal fii la sa àpp yam kon jarul ngay sibooru gëmal yàlla ànd ak yàlla topp yàlla lii yàlla démb la ko def yent bi ni ñu ko jottali depuis sa biiru yaay boobu yaa ngi am ñeenti weer fii la yàlla jaar ak ñun de kenn amul benn intervention te foofu nga gënoon mën a gaaw a deewee kii est-ce que mérité na ñu koy bokkaale kon mbokk yi bu leen fàtte ni yéen a ngi ànd ak ñun ci émission tawxiit ci Thiès Média ànd ko ki nga xamante ne mooy caméraman bi Abdul Karim Saw kon lii du ci yam malaaka bi waxaat ñetteel bi moom la ko yàlla yónni wa amalihi jëf bi nga war a jëf ñi nga war a jëflanteel tey Cheikh Abdul Karim waroon nañoo jëflante ci lii xëy na yàlla am na leneen lam lu mu ciy dolli démb bañ may ëmb la woon ci ñeenti weer moom itamit am na keneen ku mu war a jëflanteel DG tamit am na keneen ku mu war a jëflanteel ba yàlla ubbil ko ba lépp la nga xamante ne tamit mu ngi koy séentu moom Ibrahima Zak yàlla defal ko ko bindoon nañ ko démb ci bañ koy tuut ba muy tuut nekkoon ci biiru way juram amoon ñeenti weer lii la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di expliquer nii régal la ci ñun ñëpp. ñi mu war a jëflanteel wa amalihi lu mu war a jëf ak lan la war a def lii yépp bu loolu woyee wa saqiyun aw said ndax lii yépp jëf nga jël nga sa wërsëg sa àpp jot na àpp lu ci des dem léegi boo demee nag foo war a dem boo faatoo foo war a dem wa saqiyun aw said ndax kuy texe nga la wala kuy texe di nga loolu moom moo ci des kon yàlla bindoon na lii yépp di nga gis nag boo ko waxee am ku ne ax ah, man de jarul may jaamu yàlla man teemaa toog comme sama biiru yaay fa la yàlla jaar man yebal fa ay malaak lépp li nga xam te ne maa ngi koy soxla muy lekk muy naan may lekk ci sama jumbaxu yaay lépp lu ma soxla yàlla fexe ba manipuler sama yaay nga xamante ne moom rek moom moo mën non man yàlla jooju man est-ce man keneen dina ma gënal yàlla ki may toppaat ko dul yàlla fii kon yàlla jaar na fekk man ah kon waru moo am leneen lu dul yàlla waay waaye bu fekkee ne doomu aadama xelam dafa xaw a kooñoor lu muy njëkk a def comme demee na nii man est-ce jar na man nekk fi di jaamu yàlla comme yàlla bind na li mu bind yëpp ne woon na lii daal boo ko defee ku faatu dinaa xam ndax moom texe na wala texe dina ah kon man daal jarul may jaamu yàlla déedéet fa wallazi yent bi sallallahu alayhi wa sallam day waat laa ilaa xayruhu inna ahadukum li yamalu bi amali ahlil janna xata ma yakunu baynahu wa baynaha ila ziraaw fa yusbihu alayhi alkitab fa yaxmalu bi amali ahli naar fa yudxiluha nee na moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jottali wat ni doomu aadama dina jëf-jëfu nit ku baax di def lu baax ba war a dem aljana ëllëg loolu fekk ko ci ba mu dese ko lu tolloog li toll nii xasab mu ne mu jëf jëfu nit ku bon moo tax nit a ngi nekk ci diine ba mu yàgg dem ba ci biir ci dernière minute fu mu waree de mu commencé bokkaale dugg ci cirque ndax ñu ngi ci tawxiit nekk ak yéen ci seen émission Thiès Média di waxtaanee li nga xamante ne moom mooy tawxiit wéetal yàlla wéetali kook yàlla ak fu yàlla jaar ak ñun ndax nu ñu war a téewee yàlla nii la suñu ndeyjoor la wala càmmooñ lañ ko war a téewee fii la yàlla jaar ak ñun depuis suñu biiru yaay ba dara doonulee dara muy alamu saani indama kunna fi batni ummina kon fii la yàlla jaar ñun kon di nga dem di jëf jëf ju baax di jëf jëfu nit ku baax ba ci dernière minute bi nga jëf jëfu nit ku bon lu mel ni bokkaale wala xeeti bàkkaar yi nga xamante ni moom moo gën a rëy ëllëg yàlla nga laab la dugal la safara noonu la ñu war a defee attention ci ñenn ñi nga xamante ne xamuñu réer nañ nekk ci lu bon di def lu bon dëkk ci lu bon ànd ci lu bon chaque jour ñu nekk ci ba yàlla wan leen yoon ci dernière minute yi minute yi rek ñu commencé def lu baax ëllëg yàlla yóbbu leen tamit aljana moo tax gis nit ki rek ne àjjana lay eh, safara la jëm wala nangam ak nangam déedéet boo gisee nit ki mu nekk ci réer da koy gindi ne ko eh, fi nga nekk baaxul fii nga war a nekk loolu moom mooy deuxième monde bi troisième monde bi nag mooy indama nakunu eh, indama yakunu ma naxnu alayhi fi alamil yow mi mooy àdduna gi ñu nekk nii xam naa ni fii lañ koy tënk ba suñu beneen émission ñu continuer yéen ci li nga xamante ne moom mooy tawxiit ndaxte waxtaan bi dab nañu waxtu bi dab nañu bu beneen yoonee ñu mën koo leeralaat ndax émission la boo xamante ne dafay continuer ak yéen ci tawxiit wéetali yàlla wéetali kook yàlla xam yàlla xam xamle yàlla ci seen seen bii nga xamante ne mooy Thiès Média ñuy sant tamit di gërëm ña nga xamante ne ñoom la ñu ànd ak ci émission bi muy équipe technique bi jiital ci Abdul Karim Mbacke Sow ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu montage bi muy Serigne na Diop ak ki nga xamante ne tamit moom mooy soxna Ndey Binta Bey ñu ngi leen di sant waaye di nuy tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy amateurs yi télévision Thiès Média bi waaye di nuyu samay mag imam di jiital tamit ki nga xamante ne moom mooy suñu mag imaam Abdul Xaadar Kamara di xalifa alxaaji Sidi Mokhtar Kamara bi nga xamante ne moom moo sos jumaa ji di nekk ci grand grand standing waaye noonu la ko defee tamit fa nga xamante ne tamit moom mooy ngenge neew Kaolack foofu la suñu mag nekkee muy Abdou Xaadir Kamara waaye noonu la ko defee tamit fa nga xamante ne moom mooy Guinée Bissau moom yàlla di ñaan tamit yàlla yërëm ko te xaaree ko aljana moom mooy suñu jur boobu noonu nga xamante ne lépp lu nekk tey ci ñun ba ñu gis ko ci ñun ci lu baax ci lu baax ci yar ci dal ci xam-xam moom la waaye leneen lu safaanoo loolu lépp kon ñun suñu mbiru bopp la kon ñu ngi gërëm amateurs yi seen mbokk seen xarit seen soppe di imam Cheikh Mouhamadul Kabir Kamara ànd ak yéen ci seen émission tawxiid wéetali koog yàlla wéetali yàlla xam la yàlla ci fii li nga xamante ne moom mooy Thiès Média ak fu yàlla jaaral ay jaamam tamit kon loolu moo ñu taxoon jóg kon seen émission bu beneen yoonee incha allahu rabbi ñu continuer ko ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu